mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gën a tedd diggante jullit ak moroomu jullitam diggante taalibe ak moroomu taalibe muy assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di sant di tàmbalee cant gi ci suñu sëriñ sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yal na fi yàgg lool te wér di ca teg Cheikh jëm ak yal na fi yàgg lool te wér liggéey bi ñu liggéeyal sëñ bi yal na yegg ak jàmm ak salaam nu fekkee ko te tal ko ànd ceeg murit yépp te ñu dajee ngërëmal sëñ sant bu baax a baax Cheikh Makhtar Diouf mi nga xam ne moo jiitee kuréelu fàttaliku julli géej di kuréel boo xam ne bi mën nañ ne tey jii lu am fii ci ci réew ci Dakar yàlla foofu la ko jaarale ci lu wér ndax bañ koy tàmbali am na yu bari amul waaye diggante bi yu yu bari fekk nañ ko kon nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax di sant euh, ñi fi teew di mbooloo moo xam ne dañoo jëmmal baabu muridiina Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall seen dugg fii gis nañ ko bëgg nañ ci seen teewaay couleur na couleur na bu baax a baax mbooloo mi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal bu baax a baax ñu ngi sant itam vice président Babacar Xumma di mbokk taalibe boo xam ne yàgg nañoo xamante mu farlu lool ci liggéey bi ñuy sant itam di gërëm soxna Soodo Xuma ak ñi mu àndal ñépp waaye maa ngi nuyu itam ñi ma bokkal panel bi panéliste yi nga xam ne ay professeur lañu boroomi xam-xam lañu ñu gëstu lañu ñu woyefal seen bopp lañu waaye ñu diis lañu feneen ñu di sant bu baax a baax liggéey bi nag biñ ci jotee dañ noon ñu nañu waxtaan ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké di premier xalif ginnaaw bi sëñ bi la suñu waxtaan ñu ngi ko teg ci juróomi poñ bu jëkk bi dañuy jéem laaj kan mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ñaareeli poñ bi mooy liggéey bi mu liggéey lan lan moo moo doon liggéey bi mu war a liggéey ñetteeli poñ bi ñuy laaj yan bu diis bi mu yoroon yan jukkool la làmboo woon ba man koo liggéey liggéey bu rafet bi mu ko def ñette ñeenteelu koñ bi ñuy laaj doxinam sëñ Modou la doon doxe ba am ngam li mu am juróomi pol juróomi ponk ñuy laaj sëñ Modou Moustapha lan lañu lan la fi bàyyi murit yi bi mu làqoo ñu koy jariñoo ba fi ñu toll kon sëñ Modou Moustapha maanaam di ko présenté bu ñu nee rek leer mooy ci leeri sëñ Tuubaa moom mooy taaw xam nañu ñàkkul sax ñi ko jiitu woon waaye moom lañu moom lañu xam ci ci taaw bu fi toog sëñ Modou Moustapha ñuy wax eh, ne dañ koo waajal waajal nañ ko ci yar waajal ko ci jàng ak sàkku xam-xam waajal ko itam ci xam ak xàmmee ak yeewu ñu waajal ko itam ci fit ak fulla ak fayda maanaam jàmbaar bu ñu jëlee loolu yëpp mën nañ ne Cheikh Moustapha murit murit la woon jaareel nañ ko fi nu war a jaareel taalibe ni ko sëñ Fallou daan waxee ñu dégg ko ci mag ñi ne daan na wax naan maag sama mag ju baax ji sëñ Modou Moustapha suñu maam Cerno suñu bàyyi Cerno Ibra Faati dañoo yar ba nu ne nër mu jàngal ñu ba ñu ne ar mu mu mu ba ñu ne jar loolee nekk ci ñoom moo tax mu mën a jaar fi te dégg naa ci mag ñu ne sëñ Modou Moustapha ci boppam wax na ci làmmiñam bu tedd ne lu waay di liggéey rek liggéey naa ko wax nañ te wax na sax ne moom gor na gayet takkam néeg feteñ ko ba mu mat te kenn dimbaliw ko kon kooku fa ñu jaare ne euh, gaañu baax ña foofu lañ ko jaaree xam-xamam kenn mënu koo nat mën nañ dem moo fi yar ba ak teggin ya ku demoon ci moom wax nañ ne loo yaru yaru di nga jéem a yaruwaat te boo fa jógee di nga xeeb sa bopp kon kooku mooy ki nga xam ne bi mu amee ñeent fukki at la waajuram bu tedd wa làqu ñeent fukki at mel na ni mission boobu da koo doon ci turandoom di muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa ba mu amee ñeent fukki at la liggéey bi yëgsi ci koow mu war a taxaw liggéey ko waaye ñeent fukki at sëñ Tuubaa bi mu ko amee moom itam ci la dem ci géej gi muy liggéey bu mag boobu nga xam ne moo jur lépp tey jii barke waa ji daal dëkke koor askanoo ci soxna jaar ak maam moor te cosaanam weesu tukkulóor julli na ci joor gi nawet ak noor guddeeg bëccëg yoor yoor ak njoloor moo yem kajoor keroog mbàkke kajoor defari ajoor laajal waa mbawoor sigil nay daal daara yu weesu longoor ak piir saña xoor moo yeewi sayoor tuubloo tanoor yéer na malaan sunu jàmbaar ja Lat Joor te mbaaxaan doom ja jébul di ab doxoor yoonu géej gaag julli gaa feesal tey aéroport yi ak i port indil nu kàggu ak koppar foor may nu lugoon or ak libidoor ndax mooy borom maraag bi daa taamu tajoor yëkkati borom sabadoor bu daan waat wataboor dimbali na borom costume yu raw sengoor moo tax ku nuy mbaboor ameel nga ko mbaboor moo ràng ko ay góor faal seedeel kumbandoo feen ma woofu maye koor samp soroor muy gindi xoor ak soor ca wàllu boppu coor danoo bañal ba mu jotee bu foor moo tax jëfam weesu fudul podoor ak sigi moo dàq seytaane ak gàngoor tiiñal góor noor ya ko bëggoon a yoor doyloo boromam tegul kenn toor kon ko bëggoon a gis Muhammad Bamba ngi nii ma nañ ci moom bu wóor a wóor barke bi jazaaw shakor asalaamaaleykum mbokk yi loolu laa bëggoon a duggee ci waxtaan wi waaye dama bëggoon ngeen may moom a jaale samay mbokk maa koy jaale sunu sang ñun ñëpp sëñ Muntaxa di ko jaale sëñ Moodu Maxtaar xalifa sëñ di ko jaale sëñ Moustapha Njaañ Assu ak sëñ Aliou Mbàkke ak sëñ Xaadim ndax dama bokk ñoom jàng bokk classe ak ñoom lycée Blaise te tey dañoo am naqar seen xarit seen mbokk seen doomu baay di sëñ aboo moo fi jóge di sàkku ci yéen ñëpp yàlla na dëkk ak maamam borom Touba na ñëpp wax ne sëñ aboo yàlla na man nag yenn saay bu ñu may présenté danañ juum sax dañ may féetal rek ci aada te man histoire bi may jàngale ba retraité ci histoire boobu ci laa juddu jàng ko université maximum nawle yii di ko jàngale pendant trent huit ans am na lu ma xam ci histoire te topp naa mag ñi bind naa ay téere maam Cheikh Ibra Fall ci ndigalu sëñ Cheikh Jëmb Fall bind naa histoire am ngi tudd Baye éloge de la conviction et du travail mu ngi ci librairie bind naa ci ndigalu sama sëriñ sëriñ Cheikh Say Mbacke histoire sëñ Abdou Lahad maa ngi ko tëddee bàyyi Lahad le Verbe de Touba kon kay bu ñuy wax ci sëriñ Touba ak njabootam am na lu ci mën a wax ndax man nañ cee seede ay ndigal yu ñu jox ba nu def ko waaye man dama bokk ci beneen fàll nag ndax xeet woo gis day am bis am aada aada yooyu nag nga xam ne ñun ay jàngalekat danoo bëgg xale yi am ko ba nga xam ne bu ñu demee Amérique du ñu réer bu ñu demee France du ñu réer kenn du leen gindi kenn du leen ni yow foo dëkk aada yooyu nag ñu tam ci lañu far di ci yëngutu nag ak suñuy façon waaye jaawalewuñ ci benn nag bu ne xam nañ ci fanuy yem ak lan lañ ciy def ndax nun danoo bokk ci kuréel goo xam ne Babacar Njaay kër xaadim daa tànn ñeenti nit ñu bind ay dossier mu woo leen daan ni dama bëgg def film documentaire ci sëriñ Touba damaa bëgg ñoo xam ne dañu càmbar histoire sëriñ Touba càmbar ko mën a bind ay scénario kooku technique la man ci laa bokkoon ak sama ñetti nawle ñeenti at lañu toog bind onze film documentaire bi mujj ñu ko tudde xaatimatu munaajaati maa ko maa ko bind onze épisode waaye ñu ngi ci mbind ma ak doomu maam Thierno Biraye sëriñ am sat moom maam Thierno Biraye moo doon suñu jëwriñ ak sëriñ Babacar Ndiaye moo ko woote ak ma dikki waat ñu dem toog ci sëriñ Saliou waaye lanu sëriñ Saliou wax man mooy samay somb lamp ba tey ci lu may bind sëriñ bi sëriñ Saliou ku tedd kooku ba ñu toogee ci moom dañu sëñ Touba lu ngeen ci bind nes ci mën a teg baaraam lu ngeen di bind ci moom lañ ci mën a teg baaraam ndax moom wutul ku ko jay wutul ku ko jaay léppam mat na ndax moom di jeex moo tax euh, histoire bi nga xam ni moom lañuy ñuy gëstu ñun di ci bind ñu di ci def ndànk léegi nag thème bi nga xam ne moom lañ may laaj président maa ngi leen di ñaan rek ngeen may moom a dugg ci thème waaye nag dinaa wax français dinaa wax français la prière en mer la prière dans la mer la prière sur la mer et la prière sur les vagues calmes ce n'est pas la même chose en français C'est pourquoi je retiens le concept retenu par les anciens et grands témoins de la vie et des faits du Cheikh ñu ni jullit géej gi cette prière dans l'océan Atlantique en cet après-midi-là du 21 septembre n'était pas une démonstration de force ce n'était pas une démonstration de puissance mystique Serigne Touba bi muy julli julli googu jaamu yàlla sunu borom rekk la ci nambaam waaye jógul woon pour wane ni mën na nangam ak nangam ndax man na lépp ndax xamoon ni julli googu dina ko indi lépp Serigne Touba n'est pas n'importe qui il a écrit moom bindeel na boppam histoire ak njabootam bind nañu histoire maa ngi delloo ñëpp ci Minanul Baaxil Xaddim di delloo ñëpp ci Irwaanu Nadim di delloo ñëpp ci woyu mag ñi nga xam ne yor am na yu ma ci ëndaale ay hagiographe lañu bind nañu histoire am Sëriñ Tuubaa sax moo bind histoire boppam na ñëpp dellu ci jazaaw shakur ma ni histoire Sëriñ Tuubaa trace yaa ngi fi moo tax sëñ Moussa daan ni moom ku ko duural buural moo tax kuy bind ci moom nanga xam looy bind ndax boo bindee naka sudul noonu ci moom rek jeexal sëñ nag ci li jàpp ci li ñëpp jàpp moo indi ci àdduna concept bu ñu wooye la non violence maanaam xare te jéggal yëkkatiwoo jaas yëg génnew ay fital moom ñaari fital la yoroon wala sax benn fitalu ñaari ngémiñ kaamil bi ak kurusam moom la Gandhi toppandoo Gandhi 40 ans après Sëñ Tuba la feeñ Martin Luther King mi ñuy wax 1960 la feeñ ñooñu Sëriñ Tuba ci moom la ñu nàmpe li ñuy wax non violence lu tax intellectuel yu sénégalais yi du ñu tàmbalee ci moom bu ñuy def ay citation lu tax ñuy siiwal citation yi Gandhi ak citation yi Martin Luther King bàyyi fi citation yi Serigne Touba ay waxam c'est ñun dañoo wéragul ma tàmbalee ko ci ñun intellectuels yi ñun ñoo wéragul bala nuy wér dañuy tàmbali ci mag ñi wax ju rafet yi ñuy wax maam Cheikh Ibra Fall dama ni sëtam rek sëñ Moustapha wax na wax joo xam ni doy na ay leçon at xale yi Sénégal doy na leçon at xale yi sëñ Moustapha Moussi sëñ Modou Aminta nee na ku war a jubal boo jàddee mu di aw yoon xool ma njàng mu rëy moom rek ñu wax ko fii ci réew mi yow nga bëgg a jëli beneen kàddu ci beneen réew moo xam ne il ñu tekki ko tekk bu jafe sax pour ñu mën koo dégg waaye waaye dañuy delluwaat suñu bopp tuuti ndax ñu wér njaboot sëñ Tuubaa nag bala may ñëw sëñ Modou Moustapha ci ñoom laay ñëw dama ni ay modèlu courage lañu intelligence sagesse probité humilité humanité des pédagogues hors pair que les enseignants de ce pays et ceux qui les enseignent doivent écouter boo jàngee waxi sëriñ Fallou boo jàngee waxi Serigne Abdou Lahad Serigne Saliou moo ni li fi jara wax Serigne Abdou Lahad wax na ko man moo tax ma bind téere ci moom boo jàngee porte mu Serigne Touba porte plume moom mooy Serigne Bassirou ils ont montré qu'on éduque par l'exemple On enseigne par la parole, mais on corrige par la parole. taawam bu jigéen soxna Fadia rakkam yépp moo leen jàngal dañ koo jàngal soxna Fadia moo jàngal rakkam yépp moo leen jàngal nu ñu toogee seenub sëy moo leen jàngal alxuraan jàngal leen xasida yi Sëñ jàngal leen sax métier ndax ci moom la ñu ni jigéen daa war a liggéey ba soxna may kabir daan mooñ cere yi ñu muy wër réew ak réew sëñ Tuubaa gërëm na ko ba ko naar ba ganesee waaye yéen xam ngeen yéen ba ko gën a xam ba ci soxna may munu mii soxna may mun a buñ nee laylatul xadr ci àddina bi laa benn tur rekk kay ñëw may Maymuna bintu Xaadimu Rasuul lu toll ni laylatul xadr buñ ko tuddee benn jigéen la ñuy xalaat ci àddina loolu am njàng la waaye defarug sëñ Tuubaa la dinaa la wax léegi lu tax sëriñ Abdoulahi rakk ki may bëgg waxtaanal léegi moom lañu ñu wooyee borom dër bi xale yi sax dañ defa ni dër bi mooy kekk lii déedéet dër mooy toolu mbay ndax moom moo njëkk a bay ay jardin potager ñuy jaay fruits ak légumes ba Casamance ba Ndar ak fépp ci réew mi sëñ Abdoulahi moo njëkk jàpp jën di leen yar ba kenn xalaatagul dans les années quarante que ni la pisciculture dina am benn bis doomu Serigne Touba dama ni moo inventé fii Sénégal le concept de pisciculture maanaam jël ay jën di leen yar ba ñu màgg ñu mën leen a jaay ba tubaab xalaatu xalaatu ko ñii ñi am na lu ñu doon wone sëñ Murtada caatam moo defar benn chaîne d'enseignement bu ñépp xam tudd Al waaye école bi ñu génne nag moo doy waar école boobu sëriñ Fallou nee na n'est-ce pas jaaw dañ noo yar ban ni nër jàngal nu ban ni ar yeenu ban ni jar université boobu amul ci àddina Sénégal la am bu nu amoon fayda ba léegi copier nañu modèle université boobu di ci former sunu doom moom la ñu tooñ tooñ bu rëy ay taali jàngoom di dumba ay dongoom lakk ay këram tuumaan ko tuuma yu rëy génn ko am réew sunu borom taral ko teraanga yu rëy boole ca ñaar yu rëy saf saf mu mën caa duma duma yu rëy jéggal leen ñi ñuy rëy kuy wut jàmm jàppal seen ci ma ma daaneel benn te <laughs> je termine je termine conclusion laa école école borom xam-xam yi fii la nekk Sénégal école boobu wolof la ñuy wax waaye la wax ci wolof lu rëy a la ñun ñu ngi ci gëstu di ci góorgóorlu de sëriñ benn yu dimbali nekk nag ndax amul xamulu dara li ma leer mooy ah, sëñ Maxtaar dafa am benn borom xam-xam bu mag États-Unis mu ni on peut tromper tout le peuple une partie du itam maanaam aw xeet mën nga leen a nax yenn sax tout le temps benn ah? benn parti xeet mën nga leen a nax tout le temps man ngaa nax aw xeet benn yoon waaye xeet yépp mënoo leen a nax saa su ne mais fekk na sëñ Abdou Lahad wax na ko fii ci réew mi man foofu lay tàmbalee sëñ Abdou Lahad dani ndax ñetti fan la ndax ñetti fan la fan wi nga naxe ñëpp bis bi nga naxe ñëpp bis bi ko ñépp xamee muy ñaareelu fan ak bis bi la ñëpp baax muy ñetteelu fan sëñ mu soxna yu sel ñoo toog jàkkaarloog yow ci bërëb bu sel muy Parcelles Assainies bu ñu sellal loolu mu dajeeg bis bu sell ñu toftale kooku muy sëriñ Moodu Moustapha di taawu sëriñ Touba kon kii ñuy bëgg a jox kàddu muy Mohamed mu nekkoon ci beneen yoon nekkoon abbé jàng catéchisme di wo di jàngale diine chrétien kooku la sëriñ saaliwu këf def ko taalibe def ko imam mu daan jiite ci église tey muy jiite ci jàkka daan jàngale catéchisme tey alxuraan lay jàngale masul dem daara sëriñ saaliwu ko sol alxam kooku moom la jox kàddu kon tey ñu won ne yoon bi rek ni lépp a ngi sëriñ Tuubaa amul morom raw na ñëpp